Euh, alalu copor yi président Macky Sall créé moy financement yi il faut que sa entreprise am kayit moy fu tambalé ci walu yoonu kom kom donc ñu ñëw fi fekk nañ fi ay xalé yu bëri fekk nañ fi audience bu disciplinée mais aussi ministre Oumar Gueye ne mom moy jël en charge frais yépp yo xamné mom le dossier yi laaj mom moko financer tay ci suba ci 30 minutes rek defar nañ ay entreprise officielle yu am euh, dignité ak entreprise yi nga war a wara mëna créer à ak fenen li motax tax ñu aussi buñu créer entreprise ba paré dafa bëgg ñu gunge xale yu Sangalkam pour ñu accéder ci financement yi président Macky Sall indi moy ay FONSIS ay yi ay DER ACPEX ADPME yóbbu len aussi ci ministère yo xamné financement yo xamné financement des filles et des femmes loolu la ñu sant dinañ ko def inshallah parce que liñ fi gis yi dafa sedd suñu xol. Nous aussi le courage ak war nañ ko chef d'entreprise dañ porteurs de projet dañ fi parce administration direction générale des impôts et domaines 2000 ñom avons ANSD pour wu Sangalkam ma ngi ministre Oumar Gueye initiative bi initiative bu am solo la président Macky nga aussi développement sa commune

organiser jigéen ñi ba ñoom it ñu mën a am ay projets yoo xam ne dañ leen financer loolu mbégte la pour ñun ñëpp ñi nekk bi fii ci Sangalkam et au-delà te loolu donc ñu ngi ciy gërëm bu baax président Macky Sall di ci gërëm tamit le directeur général de l'APIX. waaw jigéen ñi dañ koo laaj biñ ma ko laajee ak xale yi tamit euh, ma ni leen nañu ñëw bu ñu ñëwee dañ leen jàppale frais yi ñu waroon def yëpp ñun daañu ko gàddu fayal leen ko su ko defee ñu mën leen defal projet yu mel nii jërëjëf.